dal leen ak jàmm ci info 221 seen bi leen di jox xibaar yu wér te abu abonné leen ngir dara bañ leen raw ba tey rek ci wàllum xibaar ñu wax ci wàllum passeport diplomatique yi nga xam ne jur na coow am na benn nag euh, koo xamante ni dafa jege woon loolu président Macky Sall dañ ko bloqué ci aéroport euh, avril bu ñu weesu nag Adji Mbergane Kanouté di député bu coalition Benno Bokk Yaakaar jot na ñaawlu nag manque d'élégance ak nouveau régime bi nga xamante ne dañoo pare ngir foqati lépp li nga xamante ne ngeneen la woon te gi fi nekkoon tegoon ko ci ndodd ay ministre ay directeur général bokk na ci passeport diplomatique yi nga xamante ni ministre yu bari ak directeur ci loole lañ sukkandiku ngir mën a def seen gunandaat war a tax nag nguur gi euh, ba mu fi ñëwee loolee yëpp la jël ay matuwaayam dàkkal ko les écoles ñu xamal ne keneen ci édition ni mu fa niki tey ci àjjuma ci talaata bi ñaar fukki fan ak na benn ancien directeur de cabinet bu maître Abdoulaye Wade dañ ko bloqué ca aéroport journal bi rek di ñëwaat ci dikkaat ci jafe-jafe bi nga xam ne Pape Samba boobu jot na ko dajale moom mi la sax nag dafa ñëw ngir bu noon a dem euh, France nag waaye dañu rendez-vous médical la amoon ngir mën faa faju ji waaye nag gis nañu passeport diplomatique la yor dañ ko mujjoon a confisqué police bu frontière moo def lu nu mel heureusement nag moom ex allié bu Macky Sall jot na fa dund jafe-jafe ci wàllum document wala sax nag jotoon nañ ko nag jox nag lii di passeport bi waaye nag ginnaaw ba ñu amalee ab vérification ba tax sax nag jotoon na tardé volam mujjanteel bi sax nag lañ ko daal di bàyyi ñu waxtaanee ci wàllum ñàkk kaaraange bi ci réew mi waral nag police ak gendarmerie lëkkaloo ngir teg bët defkatu ñaaw teef yëg banditisme lu nu mel lu toll ci ñetti ak juróom benn fukk ak ñetti nit ñoo xamante xamante ni euh, police gendarmerie daal di leen teg loxo diggante maris nag almadi foire ak wokam waaye itam ca ma ca an euh, ci cadre fas yéene woyal activité yu ñuy jël ngir teg ko ci wàllum jëlee fi délinquance gendarmerie nationale jot na effectué ay opération de sécurisation ci secteur yëpp nag ku jëmee ci almadi foire maris wokam ak an euh, daanaka rek chef de moo ko fësal loole waral nag ñu daal di teg loxo ci àjjuma ji fukk juróom-ñeent ci dimanche ak jàpp dimanche fan ak benn jot nañu teg loxo nag lu takku ci ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñetti doomu aadama ñoo xamante ni ñoom ñëpp nag dañ doon nekk di def lu ñu mel juróom fukk ak juróom ñetti woto yoo xamante ni dañoo immobilisé fukk ak juróom benn permis de yoo xam ne dañ ko saisir waaye tamit fukk ak juróom benn caisse de boisson yoo xamante ni ab kii la mandi dañ cee mandi te loolu sax nag buñ sukkandiku dañ na indi ak coow wax leneen rek ci lu juróomi milliards yi nga xamante ne dañ ko sàccoon Abdoulaye Sylla ak Zakirou Lahi Sow ñoom tey la ñuy jànnoo ko procureur de la république mbirum nag yooyee jëm ci ñaari milliards ci suñu koppar juróomi milliards ci suñu koppar amoon sax nag ci atum 2022 ginnaaw ba ñu arrêté euh, ginnaaw ba nga xamante ne ñaari nit yooy dégg na leen teg loxo division des investigations moo def lu nu mel ginnaaw plainte bi nga xamante ne Abdoulaye Sylla di PDG bu Ecotra jotoon na ko teg ci ndoddu ki nga xamante ne rek mooy Zakirou Lahi lu toll ci juróom milliard ci suñu koppar médiation boobee sax waraloon ñu daal di négocier mbir mi waaye nag buñ sukkandikoo ci xibaar yi nag les ko dina am nag ab coppite bu yees boo xamante ne waral na ñu jannoo ko tribunal bu grande instance hors classe bu ndakaaru ni kii rendez-vous bi ñu jàppoon ko juróomi fan ci weeru septembre bu ñu daal di dégmal même source bi di ñu xamal rek ni jot nañu tuumal tamit respecté terme yi nga xam ne war na ci médiation ak fàttali nag ci benn mbir loo xamante ne dafa dem ci benn opération bu daal di am sax mbir mi mi ngi doore ci atum 2017 kii di Jakiroulaye Sow moom nag daf doon liggéey ci société islamique ci wàllum développement ak branche bu secteur privé bu groupe banque islamique bu développement mu proposé woon nag homme d'affaires bi euh, ki nga xamante ne mooy Abdoulaye Sylla fas yéene liggéey ak moom teg ci table lu toll ci juróomi milliards ci suñu koppar tuuma yooyu sax nag mu gis na daal ba ñu waxtaanee ba noppee ba mu ko jégbale ki nga xam ko dikkoon gisu ko waaye tamit téléphone moo waraloon rek mu daal di ko yóbbu ci kanamu yoon mu jël la ko juróomi milliards ba noppi fas yéene nag xamal ko lépp li nga xam ne moo ci war euh, Bassirou Diomaye Faye di njiite réew mi xamle na ne dina wutali euh, amal tukki nemmeeku ca Paris président de la République Bassirou Diomaye fay daal dina wat di jël les euh, avions yi bu ñu sukkandikoo ci enquête nee na ñu ngi koy xaarandi fii fa ca Paris fii ak alxamis ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juillet dina ci bokk ñaareelu visite bi nga xamante ni mi ngi koy amal ca réewu Macron ñaareelu visite investiture ñaari fan bi ko amee ba noppi participation fa tamit ci forum mondial bu ñu jagleloon wàllum souveraineté ak nationale ñaareelu visite du chef d'état sénégalais bi nag dafay méngóog dafay euh, coïncider ak ubbiteem jeux olympique bi ñu amal ca Paris ca atum 2024 ni kaa juma ji nga xamante ni moom la ñu dégmal motifu voyage am nag suuf su àndi na ba tey ji jotaguñ ko xamle waaye daal xam nañ ni dans tous les cas dafa dem moom euh, Ousmane Sonko dina moom maire bu Dakar Barthélémy Dias ñoom ñëpp ñu dem ànd ak moom ngir rek mun a teewee euh, nag fas yi ne nekk ci wetu maire bu Paris di di aali hidalgo glycéride suñ sukkandikoo ci les échos Fadilou Keita di directeur général bu Caisse de dépôt de consignation waaye itam nekk doom ci di Nafi Ngom Keita mi jiite woon file of nag moom nag nee na faw rek ñu daal di teg loxo képp koo xamante ni euh, nguur gi fi bawoo jot nañ leen jox ñu daal di sax saxe xaalisu askan wi doomu Nafi Ngom Keita bi nee na pare na temm nag am na jafe-jafe gis nag ni ñi nga xamante ne dañ leen joxoon ay milliards ñu daal di ko luubal lu toll ci 70 ci temps boo xamante askan wi waroon nañ ko jëfandikoo nee faw rek nag euh, réseau boobee nga xamante ni ay ministre lañ woon ay directeur nekkoon ci nguur gi fi bawoo faw rek ñu teg leen la waaye métit la boo xamante ne peuple Sénégal ñu ngi koy jooytu faw rek nag nguur gi fi nekk nga xamante ne ay milliards na ci jëfandikoo ko seeni bopp waaye tamit traitement ci kaso bi ngir ñu jox exemple lii di avenir euh, nga xam ne ñooy génération bu ñëw loo xamante rek daal dina gën a fës fës ci xibaar yi ginnaaw nag kàddu yooyu eh, ca Ziguinchor ñi nga xam ne caabi da leen féete ginnaaw ñoom nag dañoo tàmbali rek lii di grève de la faim ngir ñaawlu nag ak longue yi maanaam eh, durée buñ leen tey ci kaso bi dafa daal di yàgg waaye tamit anam buñ leen fa tey lekkin ak jëfin lépp la ci àddu ñoom nag tàmbali nañ ñi gardine bi démb grève de la fin nag di ñaawlu nag ne faw rek ñu wàññi anam yi leen tey ci kaso bi jamono jooji sax nag ci teewaayu suuf su APS nag di ne rek ñi gardine bi ci suuba si lu toll toll ci fukki ci ay détenus ñoom ñëpp dañ neena daal ñu teg leen loxo ñoom nag nee na duñ ci tàyyi benn yoon dañ koy wóyal ndax daal gis na ne nguur gi fi nekk rek faw mu dékk leen waaye tamit fexe ba ñoom itam ñu wàññi leen longue détention yi nga xamante ni ñu ngi koy jànkoonteel seen nekk lekk ju bon waaye tamit seen wàllum wér gu yaram bokk na ci li nga xamante ne dafa sooxe bu baax foofu li nañ ci ay xibaar bokk na ci wàllum trafic drogue blanchiment film chute bi nga xamante ne daal dinañu teg loxo kii di Capo bi nga xamante ne nag waa ñaay la nekkoon ànd ci ay nitam ñoo xamante ne daal fekk nañ ci ñeenti soxna yoo xamante ne rek ñoom ñoo doon liggéey office central de répression illicite nag di OCRTIS daal dina defaat liggéey bu am solo ni ki nag guddi dimanche du guddi fukki fan ak ñetti jàpp fukki fan ak ñeent ci weeru juillet fale ca waa Guñaay ndimbalam ak agent polyvalent ak élément ñoom noo daal di def bile saisine démantelé benn réseau boo xamante ne ci njaayam cocaïne drogue lañ nekkee woon seen i yoo xamante ni dafa sophistiqué diñ ci cartel daanaka daal buñ leen di xool dañ mel ni sax dañ nekk ci Amérique latine ñoom nag daanaka ki leen ci woon ñu ko woowee Capo Keuz moom nag daal dinañ ko teg loxo mu ànd ceeg nag ñu takku ñoo xamante ni maîtriser nañu lii di njaayum doro fekk nañ ci nag ñeenti ñeenti soxna yoo xamante ni dañu liggéey ak ñoom muy élément bu bande waaye tamit jot nañu leen a présenté procureur de la république ginnaaw ba ñu leen toppee ci lu jëm ci association de malfaiteurs fekk ci ñoom lu dem ci xamante ne mun na mettre en danger ndaw yi enquête yi nag ñu ngi koy wéyal ngir tegaat ñeneen ñoo xamante ne bokk nañ ci réseau bi ndaxte jàpp nañ ne du ñoo ñee kese loole sax nag ñu ci doon gagné lu ko ci ndampaay bés bu nekk di ko jaay di ko jaayaat waaye tamit di si gën a dugal ndaw yi ñu ci loru